ci jeexal nag li ma ci bëggoon leeral mooy li indi wax ji mooy téere boobu yi nga xam ne euh, boroom xam-xam yi gën a siiw ci taalif ko muy Iba Der moo indi coowul téere bi jàngale histoire nag buñ ko dee wax buñ dee ñu dee jàngale histoire dafa war a tege ci dëgg ak maandu نحن نقص عليك نبأه بالحق القرآن صح دفع وحني بما لا ينتهي لخون دم وتجي دقي كونك بفكرت ليه وحني دني جنجل وات إستوار ريم بن كويدف ليه وارف يا بدر كوتشي أمانو ما تهم أم جري نح لين ور جوكت ما ينني خمسين ديم خمسين إستوار وينك بفكرت ليه dañuy dañoo wax ne dañuy jàngaloon histoire réew mu jur fitna ci biir réew mi fenn fu ci ne ak daay dafa tàkk loolu amul njëriñ kon loolu war nañ ko xoolaat eh, li nga xam ne nag moo ci fànn yoonu murit ndax man la ca des dama cee maalu ndax ñun ñëpp ñoo bokk doon kenn ku ci nekk am loo sa sama moom di loo ko sàmm leen kon mënuma dugg ci kii la mu wax ak kii la mu wax. waaye li xam ne bind nañ ko ci Sëriñ Tuubaa daañu jomtee bari na moom loolu moom ka ko bind bu ko may dindiwaat na ko dindi ndax nit doo ko sosal wala nga tuumaat te am na ci yu garaaw yu ci ne yoo xam ne bu demee ba nit ñi xam ko sama mën naa indi fi ci biir réew mi kon loolu moom nañ ñëpp xam ne yoonu murit rekk na trop téere ba li fii defaraat ko ndax histoire boo koy bind danga war a sukkandiku ci ay werson yoo xam ne yu bokkut lay ndax bañ koy bind daayira Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne ñoo yor loolu ci wàllu yoonu murid bañ ko déggee kenn woowu leen ca waaye ñoom ñoo yëglu wax ak ñoom ñoom ñu invité leen ca ndaje mu njëkk ma ñu dem ca yabal fa délégation ngir ñoom it bokk na ca lañ leen waxoon mooy nii ñu def ñoom na ngeen fexe ba def ko këri diine yëpp senegal Sénégal na ngeen woo ñëpp kenn ku ci ne wax leen seen version ngeen boole ko dajale ko. pour mu mën a doon lu wóor waaye ñoom nee nañ booba ñu mu jaxawaat ñoom dara kon buñ jekki-jekkee bind loo xam ne ci histoire Sëriñ Tuubaa dara am na ci yoo xam ne wérul wala sukkandikukaay ndax naaj joxe benn firnde bu gàtt am na ci benn ci ci masdar yi boo xam ne dafa wax ne Sëriñ Tuubaa ci sariha ak diinu ju set la nekkoon njëkk maam Cheikh Ibrahima Fall di jëbbu kon loolu la muy junj ñëpp xam nañ ko sa loolu téere ba ka ko génne woon ñëpp xam nañ ko euh, Serigne Maodo Touré ba coole bare ba nar a indi fitne ci réew mi da woo dajale téere yëpp lakk ko kon bu sukkandikuwaatee coole njuumte la am na ca feneen yu bari foo xam ne dafa wax ne maam Cheikh Anta moom ak maam Thierno te maam Thierno yu bari bari na ca ak histoire yu bari loo xam ne bokk na ca lam ci wax it nee na Maam Mor Anta Sali tëntuwul jàng de moo tax Sëriñ Tuubaa génnoon dem jàngi te loolu di wut Mamadou Rassali daaram bokkoon na ci daara yi gën a mag ci Sénégal dañ daa wax ne sax université la ndax léppoon ci réew mi jamono bu nit daa ci barab day dañuy wax ne kii dafa fànnu ci naxu wala arud wala bayaan wala mantiq wala fiq moom na daaraam yëpp day faral jàngale moo tax dañuy wax ne université la ñi ñi ngi koy xamal moom ne ko bu fekkente ne bëgg na téere ba ñun ñu nongu ko te ni ngi ko koy diggale ci suñu jot tam nañ ko koy diggale ci kër diine yëpp ndax ñoo ceew batte fenn fu ci na dem laaj leen jox ko seeni mbind mu boole ko yam am ñu dóor ci biir topp ko bu téere bi leer mu génne ñëpp xam ne amal na njëriñ Sénégal waaye nag mëneesu ta bàyyi histoire ndax adduna day dox te mbind du fi dugg buñ ko bàyyee noonu mu continuer jëmbi jamono ñay dikkaat dana jàpp ni histoire suñ Tuubaa ndee demee kon loolu ñu ngi koy xamal ne ko daal ànduñ ci ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg li fi defaraatuñ ko ba ci loolu moom ñu ngi koy wax ci kanamu àdduna sépp di ko xam bu fekkente nag nanguwuñ caa dellu si waat ginnaaw boobaa la Cheikh Abdoul Ahad waxoon rek la waxaat ba mu fi tere ay tere am suñu gàntu ci Mbacké daa jox taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ndigal nee bu ko bu fa kenn dem di fa jënd ba bitig ba fay kon fii itam bu ko bu bu bu ci diisoo amut waxtaan amaat ci bañ déggoo ci boobaa itam dana jël responsabilité xam le ne téere bi nanguñ ko te ànduñ ci loolu daal laa amoon ci ci leer la